nekk na phénomène bu nga xamante ni léegi la la plupart góor ni buñ len laajee jigéen ni tamit si ñaari côté yeb la parce que bu ñuy wax infidélité dañuy wax du côté de la femme et de l'homme raison pour laquelle ñu indi leen tey thème bi balaa loolu mbokku téléspectateurs yi dañu del seetaan micro trottoir bi nga xamante mom moom lañ demoon jëli si seen biir émission au fond des choses fidélité da dafa nek lo xam nit ki bo gëmé sa bop rek yaakaar na nit lu mu war a am non du tax nga dem bàyyi nga bëgganteelu quoi sur domaine mbëggeel wala nit waaw bu fekkee waaw yow nit ki da nga ko bëgg si sur domaine boo xam ne bon da nga ne waaw da ko bëgg ngir yàlla kon donc waaye waroo xool am na wala ñàkk na wala laneen ak laneen quoi infidèle

Nah dañ war ray jigen mom moom waru góor sax ala limite sax mën nañ ko sax xawa tole mais jigen mom warul infidèle parce que waroo am jëkër pare wa dëgg yalla ñoo dañ la war lapider lapider. yéen mbokku téléspectateur gis ngeen li nga lañ jëli population yi rek euh, suñu professeur bi nga

union boobu c'est diggante ñaari nit la yoo xam ne kenn xaju ci euh, bu ci kenn xajul nag ça veut dire nit góor gi la ak ku jigéen ki waaw góor gi ak ku jigéen ki léegi nag kenn si ñoom bu demee ba xejal beneen nit moo xam góor la maam jigéen la ci diggante boobu di ko ci nëbbu ba pare di dund lu muy dund ci kii di ko dund ci kële te mu jëm ci lu ñuy wax mbëggeel ak relationnel euh, foofu mun nañu ne infidélité juddu na fa. lan infidélité. boo ko fi naroon euh, expliquer il faut que nga euh, xaaj ko ci ñett. donc benn bi mu ngi ci ci couple bi nen mooy ñaar ñu ñu moo xam dañoo sëy mais man ci sëy bi laay préféré gën a jël parce que moom mooy gën a yomb expliqué ñaari nit ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi marié wu donc cause bi mun a nekk ci nature mariage nu mu doxee moo xam ku nekk nu mu ko yëgee moo xam góor bi la moo xam jigéen bi la donc kooku benn foofu benn pànc la boo jëlaatee beneen mbir bi mu ngi ci nit ki nit ki ci boppam ci éducation am si ni ñu ko yaree ak ci moom rapport bu mu am ak sexe waaw parce que infidélité souvent du nit ki moo xam jigéen ak góor boo déggee ñuy wax infidélité rek du dem jëli ji kaasu café du dem doxantu souvent le plus souvent bu ñu nee infidélité rek parce que am na fu mu egg donc mu ngi ci couple bi nu muy doxee mu ngi ci nit ki nu mu mel ak nu mu màndargowee ak nu jëkkam ak yaram ak lépp ak rapport bu mu am ak sexe beneen mbir bi tam mu ngi ci euh, mooy lu ñuy wax nit ki rapport bu mu am ak diineem donc ñett ñooñu yëpp boo nga expliquer tey causes yi il faut nga jël si ñetti domaine yooyu ñetti euh, xaaj yooyu il faut nga jël ko bu nekk nga jox ko explication parce que boo ñëwee rek joxe benn explication boo xam ne moom mooy expliquer infidélité dans sa globalité mënul nekk boo jëlee tey jii euh, ci couple ñoo xam ñaari nit ñoo xam ne tey dañu marié wu euh, da nga war a xam ni que sëy ñaari nit dañ koy def parce que am na lu ñu ut ci biir sëy bi am na lu nit ki di ut ci biir sëy bi

xam nga yow tey jii kenn bu ñëwee dugg ci biir benn euh, entreprise def na lu ñuy wax mariage professionnel entre moom ak patron am. début bi day ñëw patron bi di ko nettali lu nee non kër gi neex na salaire bi ngay am li ngay jot bu demee ak weer gisatu ko day génn. nest pas bu génnul tam muy xarmat xarmat boobu mooy infidélité. Mm-hmm. donc ñaar bi lay am cest ci biir coupe bi bu nekk parce que rapport d'intérêt da ngay ñëw dugg parce que am na daal li nga ci yaakaar du intérêt matériel mais am na daal li nga ci gëm nga ni que jamono yi nga newoon euh, euh, célibataire voilà am na dugg nga ci pour nga am dara dugg nga ci biir gisatoo ko moo xam jigéen nga moo xam góor nga léegi ñaari benn benn alternative mooy am mooy nga génn mooy lu ñuy wax divorce beneen bi noo génn nga des ci biir mais ba pare la ci manqué ngay dem di ko uti feneen

bu jotee jigéen bi jël bagage domam jël bagage am néna nee mu ngi kër yaayam euh, góor gi tok ci kër gi du am dara lu muy def xolé xolé finalement mu mujjee euh xulo yi bëri euh soxli kenn mëntu ko fajj góor bi du ko mëna fajj ou bien alors soxli yi bëri nañu donc mu am ben genre insatisfaction bëri bu amatul communication amatul euh, parce que bo démé tay ji si société euh, yu ci doon lu dul société africaine ou bien pas société sénégalaise lu ñuy wax union dañ koy dundal mais fi dans les ménages sénégalais da ngay sentir ni que union bi daf mel dañ ko lu war la rek daf nañ ko rek mais li tax ñukoy dundal ni ngay yewote jël sa grab arrosé mu gëna ay duñ ko def euh, c'est rare nga gis tay borom euh, par week-end ñuy dem fenn ak mais di dem resto euh, c'est hyper rare da chaque fois resto bi chaque fois mu bu lu muy def lay donc finalement mariage physique lay don mais yu sew waron nek ci mariage bi neex tax communication bi am échange bi am respect bi am

ce euh, deuxième point bi la moy nit ki numu bindo ak rapport bu mu am ak lu wax le sexe parce que infidélité le plus souvent bu am rek mom ak sexe bi c'est très lié c'est très lié parce que comme nous mu la dem jëli café ou bien dem seeti nit koku souvent loolu du infidélité donc insatisfaction boobu mu ci jigen bi mu ci gor gi mais ci gor gi la ci góor bi la ëppee parce que tout simplement boo delloo ci psychologie wu góor euh, nu ñu ko bindee la nu ñu ko bindee ça lan euh, da ngay jël tey ji góor boo xam ne day am jabaram dara manqué loko mu dem an deux ans commencé dem di uti fenen na a question de satisfaction lu mu a def yépp mu mais dafa am daw lu doy ne comprendre nit ki ko bindé mëno ko côté sexe nga souvent dañuy ne euh, les besoins physiologiques en français moy nit ki amna saak lu mu foor foor lu mu ay aay loolu ci màndargalam ci noonu lañ ko bindee besoin physiologique yooyu lekk a ngi ci naan a ngi ci euh, nelaw a ngi ci mais tamit sëy mu ngi ci ça veut dire sëy du lenn loo xam ne nit ki moo koy décidé non man moom awma problème sëy mun naa toog vingt ans du ma sëy du dëgg ni mu yeewoo tey xiif sonn tëdd du mun a jóg du mun a def dara ba pare yaram di di laajte lekk di laajte ndox noonu la ko yàlla bindee ba nga xam ne besoin physiologique sexe boobu da ko laajte da koy da ko war a am donc ça veut bu nekkee ci benn couple boo xam ne moom loolu amu ko normalement moo xam jigéen moo xam góor bu ko fa amul rek dem uti ko feneen loolu moo waral tamit souvent il faut que nit ñi ci biir couple yi ñuy jàng su ko lu ñuy wooyee souvent éducation sexuelle jàpp ni que doo man peut-être aw temps bi tey euh, amul problème donc mun naa ko def semaine huit semaines et cetera plus ngeen di toog doo leen ko def plus besoin bi di fi nekk te tamit am na dara lu ko lu ci lal mooy mooy benn mbir la boo xam ne ñaan ndox ak ñaan lekk moo gën a yomb ñaan sëy ñaan lo ñaan ndox ñaan lekk moo yomb dès le début boo leen amul communication relax communication boo xam terre à terre c'est que ni que moom dala ci jaay affaire santé ni que dala ci jaay affaire lu ci bëri da ngay téye parce que kersa baa ngi ci. donc boo ci ce sa pas parce que ko mais da ngay jaay mais jaay ba finalement yow après genre relation du genre tëkku ma Euh, man tam tëkku naa ci ku nekk di jaay ni que man maa la gën a aay ci loolu voilà yaa ma ci gën a soxla waa kii di aloo kenn ñaar yëpp soxla ngeen ko mais dina egg benn point boo xam ne kenn nangu def premier pas bi te loolu bu bu bu fa eggee nag da nga gis ku nekk day dem booram di ko uti n'est-ce pas léegi nag am na beneen forme bi d'infidélité boo xam ne tamit ci biir ci toujours ci mandargal nit ki la mais boobu c'est pas lié au manque c'est lié à un autre phénomène boo xam ne li may wax rek ni ngay gis tey di nit ki am benn rapport ak cigarette am ñoo xam tey di euh, mun nañu cigarette man bu doon maye duñ ko jël supporté wuñ ko bugguñu ko mais euh, am na ñeneen ñoo xam ne tamit côté sexe bi dañ si yarul seen bopp

buñ ko doon def c'est parce que mbir mi moo leen ëppoon doole donc sexe euh, c'est important que nit ki tamit bo loo ko bëgg bëgg nga jëm ci réguler sa bopp comme ni ngay réguler sa bopp ci drogue bi ni ngay réguler sa bopp ci alcool bi nga réguler sa bopp parce que bu la ëppee doole rek mënutoo toog lu tax mënutoo toog parce que ci biir mbir boobu dafa am ñaari fànn dafa am sëy bi en tant que plaisir dafa am sëy bi en tant que désir Euh, sëy bi en tant que plaisir boo koy def ak sa jabar amul problème di ko am mais boo demee nag ba ba am ba sa xel léegi yow connexion désir bi la nekk ça veut que yow lépp loo am ba pare il faut nga uti leneen loolu la parce que souvent nee nañu désir mooy loo xam ne amagoo ko da koy gis amagoo ko donc dafa am benn envie bi nga ciy nekk mais boo demee ba am ko rek envie boobu day tëb désir boobu day day tëb donc yow yaa ngi uti leneen dafa mel ni daal la yow jënd tey lu mu rafet rafet di nga magasin di nga toog ay semaine di ko xalaat di ut xaalis di ut lu mais boo demee ba jënd ko ba téye ko sa loxo rek amatul valeur pourquoi parce que désir boobu léegi assouvir nga ko da ngay passe moo tax psychologue yi souvent di ne boo amee désir boo demee ba satisfaire ko rek yaa ngi ut beneen désir ne nii infidélité de nekk euh, rompre un pacte de fidélité euh, fidélité nag bon nit ñi ni koy fin ñu koy gën a sàkkoo euh, ci wàllu sëy diggante jëkkër ak alors les question d'infidélité boobu da nga def contexte am contexte de moi. pacte de fidélité bi nga xamante ni moo am ci diggante jëkkër ak jabar naka la ko ñaari way dencante yi ku ci nekk ni nga ko déggee ba pare ñu ramené ko ci suñu réew aussi ni nga ko déggee parce que euh, transgresser loo xam ni norme sociale la warul nekk lu yomb doomu aadama donc bu ñu toogee nag ba infidélité bi vraiment nekk euh, lu am doo lu bëri léegi ci suñu réew Euh, jaadu gens waxtaan si comme nous ko waxee bon micro trottoir bi aussi am na ay éléments yu sont yu ci euh, niñ ko ils ont tendance à banaliser ou bien à se donner le droit à l'infidélité mm-hmm. alors que c'est pas un droit pour nous. Mm-hmm. Euh, infidélité ko teree lañ ko sur le plan social et aussi sur le plan te de fidélité xam nga sëy nekkul loo xam ne euh, nit ki da ngeen di jékki-jékki rek ñu ne leen waaw ay ca dajaloo leen sëy leen ak yooyu du loolu euh, sëy ñaar nit ñooy daje euh, bëggante am lu xew seen diggante ñoom ñaar ñëpp mu nekk benn benn message am benn attirance bu am ci diggante ñaari way dencante yi ku ci nekk danga nit ki buy réagir ci dara c'est parce que dafa un besoin Il faut fonctionner par les besoin c'est ce qu'on appelle la libido libido c'est euh, tout ce qui est le fonctionnement énergétique c'est sa yaram libido alors euh, nit ñi nous li la libido bon ma c'est-à-dire dañu la libido la sexualité mhm. c'est vrai hein, euh, la sexualité est une composante de la libido mhm. d'accord maintenant euh, nit ki buy dem jigen buy ut borom kër gour aussi buy ut jabar dafa am bien satisfaction libidinale pour maintenir ni essence bi en fait kenn seul pour lekk acte de nello. donc il y a une satisfaction euh, corporelle euh, psychologique pour ramener nit ki moom lay out mhm. té parfois dans notre société dañuy am tendance vide bobu ñu négliger ko c'est-à-dire la relation humaine té vide bobu téewul ci dara. Mhm. lu ci ay euh, ay sentiments. Mhm. ay yek yek, cest c'est-à-dire euh, jigen bu nekké ak borom kërëm soxla na. Euh, soxla na considération soxla na ku ko neexal mhm. soxla na attention mhm. soxla na affection mhm. ay câlin voilà voilà lolu moy mooy euh góor aussi lolu lay xaar ci jabaram est-ce que vous comprenez et puis euh mbëggeel dafa nek lo xamné euh dafa dafa dafa fiir comme on dit mais c'est naturel aussi hein. parce que pour parce mais bien sûr ça c'est tout à fait normal mm-hmm. mais une société mo ñaané nañu ne euh, ba ne de tolérance am couple c'est c'est deux personnes da ngay liggéey sa jabar liggéey bon bu ngeen vous devez vous partager ni sa bien-être ci kër gi sa épanouissement yow aussi di ku ki da nga a épanouissement aussi alors il euh, euh, indi a ay problème. je donnerai un exemple euh, man ci expérience professionnelle de ma am musna cliente c'est elle-même qui s'est plaint hein, parce que lolu ñuy wax ni thème bi ñu débat daf ko dab mhm. ah muy infidélité c'est-à-dire te bëggoon na jëkërëm bëgg na et tout ça mhm. ils se sont mariés voulu bëggoon na vraiment respecter euh, engagement ci mhm. sey bi et tout ça bon mais euh, dafa amone ay manquement euh, ki nga xamné ak koku la dem tromper jëkërëm lenn rek la ko mës reproche la ko mës def ben compliment mu solo mu apprécier ko

alors mais ba mu demee ba ñu defee parce que elle elle en souffrait parce que vraiment dafa jàppoon ne jëkkëram mérité wul ou l'or, xamul nan lay wax ak ji alors mu koy souffrir donc loolu moo ko indi woon def mu def psychothérapie mais bi mu ñëwee euh, bi mu waxee ba xol ci nek xam lan mo ci responsabilité ak lu ci responsabilité jëkkëram et tout ça. Mhm. Euh, ba ñu ñëwee on a fait une euh, thérapie de couple. Mhm. ñoom ñaar ñëpp. Mhm. ils se sont retrouvés. jëkkër il a sorti des choses yo xam ne bëgg na ci jabaram. mais jabar ji il était bouche bée musul xalaat né jëkkëram lolu neex nako ci jabaram. est-ce que ci ci bëgg na jigen di def euh il lui a toujours fait comprendre le contraire c'est-à-dire ma jox la ben exemple bu daan dem euh, bu gisaan kuy sangu piscine. Mhm. à la télé et tout ça. danaan mhm. kii dafa baal ma du terme dafa ñàkk fayda mhm. naka lay solee maillot de bain ci ci ci kanamu nit ñi et tout ça. alors qu'au fond moom loolu la bëgg société dafa am tendance jox góor. de façon officieuse droit infidélité. kon góor ñi il faut que ñu comprendre que seen comportement infidélité boobu nga xam ne dañ cee yàgg. Euh, moi je dis pas d'emblée hein que jigéen bu infidèle rek. Euh, da droit mhm. mais c'est ce qu'on appelle il y a un mécanisme mécanisme psychologique mhm. c'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. Mhm. c'est un mécanisme psychologique qu'on xam utiliser euh, pour rendre pour que mu comprendre ce message da nga en renvoyer les donc je pourrais dire sur la base de cette de ce mécanisme de défense que jigéen ni bu ñu demee bay def infidélité c'est parce que l'infidélité des hommes mhm. est démesurée mhm. yéen mbokku téléspectateur bi gis ngeen élément bi nga xamante mom moom lañ jëli ci si kolom bi yaay Fatou ñu koy jaajëfal bu baax léegi monsieur Kane dama bëggoon xam nga est-ce que nous sommes debout face à l'infidélité entre hommes et femmes ego euh, c'est-à-dire ndax ni ko ni ko jigéen bi di defee noonu la ko góor bi di defee non loolu euh, amul amul amul amul égalité déjà amul égalité entre les races euh, c'est-à-dire de demee France nous muy amee amee comme en Afrique te kooku explication bi euh, dafa mun nañ si ko expliquer de plusieurs manières. face à religion aussi tamit xam nga religion bi moy premier moy moy troisième volet bo xamné développer développé wu ma ko ci yar gi la ak ci gëm diine bi ak ragal yalla xam nga loolu tey ji boo xoolee te y a un effritement n'est-ce pas de la relation religieuse c'est-à-dire de la relation entre l'individu relation entre nit ki ak yalla kooku mën nañu ñep nangu nañ si que légui dafa wàññeeku. Mm-hmm. ragal yalla légui wàññeeku na. donc lolou moo dernier point infidélité bo xam

benn yoon lañ koy jox benn yoon lañ koy rocc donc yow da nga xam sa biir xel ba nga xam ne da ngay xam ne yow sama jabar bu ma ko trompé benn yoon rek suñu relation jeex na donc yow da ngay réfléchir avant nga koy def te foofu am nay garde-fou yu bëri yoo xam ne tamit euh, teg nañ ko ci parfois même mun nañ ne euh, du même aspect social bi kese mais même aspect juridique bi dem nañu ba ci biir mariage yi léegi da ngay gis dañuy signé ay contrat contrat selon lequel tey ji yow boo ma trompé mun naa la fase du ma la jox dara euh, boo ma trompé ñeeg ne la et cetera day am condition xam ne yow boo demee ba di ba nar ko def

kersa bi euh, ak diine bi ak éventuellement tamit góor euh, góor dañ ko def yàlla daf ko binde de telle sorte que mën nañ ne moom mooy chasseur bi tey fii même Sénégal fi tey c'est rare ngay gis jigéen dem di doxaan góor souvent góor mooy def premier pas bi c'est que ñu changé na mais ba léegi une proportion boo xam ne dafa dafa wàññeeku te ça côté cest côté boobu nee naa am na yenn mbir yoo xam ne mënoo ko expliquer sans génnee ci yàlla parce que nee naa la yàlla moo bindee góor noonu c'est pas pour rien mu ne ko kat jabar et d'ailleurs même phénomène boobu kat jabar boobu loolu laay woowee souvent infidélité institutionnalisée. mais si kat jabar loolu xam nga yàlla dafa ne waaw moom laa lay expliquer nag moo tax man instant yi damay dugg ci psychologie nit ki xam nga nit ki tey jii boo neewee bon mun nga lii mais bul egg fële. donc déjà moom dans sa tête ça veut dire que garaawaloo ça saa boo ci ben environnement bo xamné yow tey ji gis nga tey infidélité ak polygamie ben différence rek mo len amal moy bind këyit bi mais bu wesso këyit bi c'est par rapport ak jabar bi c'est la même conséquence tey ji boo amee sa jëkkër mu xey tak benen jabar c'est la même chose que tay nga yeewoon rek bu donc la seule différence c'est que fii dañ ko institutionnaliser d'accord mais déjà dans sa tête le fait déjà que ñu ne ko yow dem dans sa tête n'est-ce pas euh, Lui permettre là. donc société européenne amul boo demee ci yeneen dëkk amul mais Sénégal fi dafa femmes moo tax suñ suñ ñu si bëri dañ koy def ba pare di ne bon bu may doxaan fu laay amee sama ñaareel su may doxaan fu laay amee sama ñetteel fu may doxaan fu laay sama ñeenteel mais du am limite du am lu lee moo entre ma ne entre góor ak jigéen différence bu par rapport à l'infidélité kooku il faut que ñu notions. ko donc mun nañ mun naa infidélité Gore, moo gën a développé que infidélité jigéen lolu amna donc lolu c'est un c'est un fait parce que jigéen bi souvent lu mu dëng dëng bu demee lu mu yaaxu-yaaxu bu démé ba marié sur 10 peut-être les 9 mun nañ ne dañuy arrêté lolu dina am nak kenn ko xamné bon peut-être pour des raisons x ou y insatisfaction ak leneen ak leneen sans compter aussi amna benen phénomène bo xamné c'est pas une excuse moy tay di sénégalais dañu tam ci benn mbir da ngay tak jabar bayal ko sa yaay dem voyager 2 ans 3 ans

mi ngi am fukki at ak juróom-ñaar maanaam 17 ans génn nañ man ak moom deux ans bi ñuy génn amuñu woon benn problème ñu ngi amoon relation bu rafet ma koy seeteex seen waa kër yëpp bi ñu génnee ñaari at nag si laa ko takk soxna bi ma ko takkee soxna mu ñëw sëy si sama kër sama kër yaay maanaam après biñu commencé dund non mu xawa metti sama bor fekk man manam tailleur lay liggéey quoi ma ngi won euh, marché Sandaga fofu la yoron ben cantine après affaire yi xawa a tar fii ma décider dem gambi bima démé gambi nak def na fa euh, ñetti at yo xamné ñewuma Sénégal bi dem c'est laa ko ne mu dem kër yaayam comme te bobu ma ngi voyagé te xam nga fofu moy xawa gën parce que dina mëna jappalé yaayam bima démé Gambie def na fa 3 ans bima fa défé 3 ans ñi ngi den déggo xam nga parce que bobu mi ngi kër yaayam yenn saa sama yaay dem fa sama sœur yi bima amé ñetti at nak ci la ñëw dellu ci bima ma ci ah fekkee na ko no xamné ni nii yaakaaruma ko won parce que ñi ngi don déggoon de ma am si moom yaakaar ndaxte man ak moom dund na ñaari at yoo xam ne musuma woon leen mais comme te yàlla lu muy def ndekete am na ku mu nekkaloon sama ginnaaw. bi ma ñëwee maa ko fekkee parce que bi may ñëw tàggu naa ko waaye jour bi ma waroon yegsi yegsi wu ma jour boobu parce que dañu amoon tardement si bag bi waaye bi ma ñëwee noonu maa ngi ko fekk seen kër ma dem seeti ko parce que boobu mu ngi woon kër yaayam. waye bima ko ñëw ci la ko fekk anam bo xam ne ko doon wax duma ko gëm manam dal dama ko fekk mu ëmb sama soxna ah bima démé ba ci biir parce que bima ñibissé lolu am fekk sama yaay yëgul tinul ñu koy nëbb parce que sa yu meer bi ñëwé fofu dan na ko gis mais xam nga rek jigen at ay pexem après ci la ko fekké non ah bima ko laajee mu ne ma dafa am benn cousin wam boo xam ne mi ngi ci biir kër gi boo xam ne ñoom ñaar maanaam xawoon nañu am diggante ñoom ñaar waaye boobu avant ma koy labat la waa faute bi mun na nekk ci man maanaam mun na nekk ci ba mun na bañ a nekk ci man parce que man di ma war a def def naa ko parce que góor laa parce que bu ñu nee fidélité comme ni nga ko waxee mooy maanaam man dama gëm ne sa jëkkër bu demoon 10 an bu fekkee li ngay woote mi ngi ci yow te jigéen bu fekke li ngay wote mi ngi ci yow war nga mën xaar sa jëkkër kon bobu faute bi du ci man parce que dama demoon wutu jëte li ma demoon wutu ji pour mom la mais sama fidélité man sama bor koku mun baña am danger parce que ñun ay jullit lañu te yalla daf ñu may ñu tak ñenti jabar waye fidélité buñ koy wax ci jigen la ëppee manam parce que goor ak jigéen ñu bokk anam ma ngi sante yalla bima jitalé sama gëm ndaxte mënon na démé neneen waaye comme te noonu la demee jullit laa mu jiital ngëm yàlla waaye metti na ma metti boo xam ne tollu woon naa foo xam ne bu ma nekkul woon jullit dëgg xam naa bés boobu du ma yeewu parce que xaru sax demoon naa ba kay xalaat pour gé mu génn sama xel maanaam doom ji après bi ñu waxee ak seen waa kër bi ñuy waxee ak seen waa kër yaay ji ne moom mbir mi daka ka bett mënu ma ci dara te ma tam dama ko wóolu woon mu doon sama jabar mu dund deux ans sëy un an mu nekk trois ans léegi bu demee ba def loolu ndaxte sax moom làkkakat la ñoom ay bambara lañ amoon jotoon nañu am ay jànkonte ci biir relation bi waaye nag xam nga mbëggeel moom fu mu dugg rek daf lay bëgg parce que sama yaay dama ne ma benn instant naan ma est que doo xaddi sax ma ne ko déedéet parce que yërëm naa ko jigéen la te maanaam boobu xale la woon bàyyi lekk ma eggali sama njoor mbirum tas gi moom si lañ nekk parce que dafa nekk loo xam ne dafa xaw a yéeme torop gaa mun naa ko dundee waaye day nekk loo xam ne du ma ko mën a dund ndax moom parce que doom ji maanaam sama doom la maanaam du sama doom te ñëpp xam nañ ne tamit am sa jabar ñëw fekkee ko mu demee beneen anam xëy na sunu borom moo ma dimbali ma am nu ma ko gëmee am nu ma dàmpee sama xol waaye instant yi daal li ma si xam daal mooy man daal moom yàq na sama àdduna te xalaatuma waat si kaw suuf ah balaa maa amaat jabar dinaa ko xoolaat bu baax a baax a baax parce que fu mu ne nii moom dimension yi ma nekk nii ah yéeme na torop waaw li ma doon wax rek xam nga man dès le début nee naa la mbirum euh, sëy mbirum sex sexe laa koy waxee moo gën a yomb ci français. nit ñëpp ci tolloo ça veut dire que euh, ni ni nit ki soxlee lekk mhm. soxlee naan yàlla moo bind loolu soxla la ci nit ci doomu aadama moo xam jigéen la moo xam góor la c'est-à-dire nag expression bi mooy différence mooy am différence day am différence ci expression bi xam nga mun nga am benn besoin ni mais ni ngay exprimer sa envie besoin boobu mooy mooy mooy mooy différent tey ji da ngay ñëw gis benn euh, ay góor toog xale bu tooy romb leen ngeen baal ma ci kàddu yi da ngay gis ñenn ñoo xam ne dañ koy wax

différence si yar gi la ci diine gi la ak ci yeneen yi mais quand même góor yëpp a ci yem donc à du moment góor soxla na ko jigéen soxla na ko et que doog la moom heure bu mu heure heure bu mu manifesté wu rek munoo ci dara day nekk sa xel dafa mel ni tey nga jàpp benn nit nga teg ko fenn rek xiifal ko maral ko jël ndox teg ko ci wetam. bu mu la jaaxal boo ñëwaatee fekk mu naan ndox bi début bi mun na ko muñ muñ boo ko nee bu laal ndox bi ndoxu diw la mun na ko muñ mais bu demee ba nga xam ne dee rek a ji des <laughs> mais day jël ndox bi naan jël lekk bi lekk mais donc ki jël jabaram takk ko bàyyi ko ci biir kër gi te mu nekk sëy nekk su nekk loo xam ne moo ko ëpp doole moo xam ne soxla la ci moom muy wër dëkk bi di gis ay góor ay góor diko doxane doxaan bu ne ay xelu xelu sëy di nekk ci bopam diko ko ci bopam pendant 1 an 2 ans 6 mois ba pare comme ni ko waxee lek bi nekk ci wetam nga ne ko bu ñu ko laal mais bu am na fu muy toll foo xam pour mu pour mu traverser le Rubicon day yomb. mais nga yaakaar foot foot bi tamit du ci ku góor gi naka ngay demee tukki bay mais donc comme besoin la wax xam nit ki mu loolu moo ëpp doole nee nañu souvent lu koy lu yëngatu lu ko yëngale ko ëpp doole moko ko ëpp doole dem na ba fenn fo xam ne mëntu ko muñ mais il est évident que foofu footu footu góor bi la parce que dafa ko bàyyil ci ay besoins yoo xam moom da ko soxla faju ko dem un an deux ans trois ans te yàlla xam ne moom mu koy faj feneen donc yow nga dem loo xam ne mënoo ko def yow nga dem Europe def fa lu la neex am fa say jabar am fa ko da nga war a uti feneen te mu am ay soxla bu ko defee tamit yàlla na ma yàlla baal mais pour man faute bi ci góor bi moo tax sax boo xoolee ci biir diine bi euh, peut-être ñoom Iran Ndaw ak ñeneen dañ ko gën nee nañ am na benn période boo xam ne boo ko bàyyee sa jabar te dellu si woo am na droit laaj divorce ah donc yalla déjà bu demee ba ça veut dire que euh, lolu am la. Euh, nañ dem seetaan aju psychologue bi. yaa Fatou li ci wax te ñëwaat si suñu biir émission des choses. bu ñu établir une certaine communication ñaari wañ dencante yi dañu wara a waxtaan. pardon tak jabar. euh ba paré nga xey dem euh, nekkul lo xam dafa jaar mhm. mais du si c'est-à-dire comme li tant qu'il y a communication le dialogue n'est pas rompu gis nañ koo xam ne jëkkëram tun tukki 10 ans te terew mi ngi toog di ko xaar parce que dafa jàpp ne li tax jëkkëram dem seen intérêt la euh, elle est concernée et que c'est un sacrifice qu'elle doit faire mm-hmm. ba pare mu pare pour def sacrifice boobu mm-hmm. kenoon mi ngi jàpp ne sama jëkkër dem na li mu dem man taxuma donc je ne suis pas concernée parce que impliqué ou quoi, xamul lu tax jëkkëram dem. Mhm. Euh, lu mu fay def moom xamul. Mhm. gisu ci bopam bok comme liñuy wax Sénégal nit ki dafa wara a gis boppam ci lamuy def. moo ma wax né dialogue bi. Mhm. dafa wara vraiment nek lu prépondérant dans le couple. ngay denc day il faut ñuy waxtaan. di yego ku nek xam li nek ci sa morom. donc nit dafa am comme je dis likoy koy hein le sentiment amoureux dafa nek ben sentiment bo xamante faut combler la personne est comblée parce que ils ñu né si olof dañuy wax na nit ki so de da ngay gumba da ngay da ngay mm-hmm. c'est-à-dire do gis ben défaut ci kenen ki mm-hmm. et puis kooku da fay satisfaire mm-hmm. satisfaction bi euh, nekkul ci rek ne egg ngeen ci satisfaction sexuelle nit ki beaucoup bëggé satisfaction la ci yow partager ak mom ay moment satisfaction la ci yow du ngeen bëgg taggo ben benn yoon mais toujours en envie d'être ensemble tout le temps yéen a ngi nek yéen ay and suñu kat bu célèbre yu suñu wax naka mhm. neena na ñaar nit bu ñu bëggante boo gestoo gis kenn ki togal tout rek léegi nga gis kenn ki kon xam nga ko xamne ño xamne bo gisé ki mhm. bala nga gesto gestu gis ka ca des ñoñu xam nga infidélité donc euh, on ne peut pas avoir le sentiment amoureux mhm. de façon vraiment pleine dans son dans son fort intérieur mhm. et puis ngay infidèle mais est-ce que nous ñi aussi la wax toujours mhm. il faut que ñu wax ci ñuy relation de couple est-ce que les gens ils prennent le temps d'être vraiment amoureux ci relation bi en

te pourtant tey boo doon lekk mango ba day neex mais bu nga koy servir matin midi soir bu yàggee mu sàppi la donc désir boobu nag beneen dimension bi rek mooy désir désir moo supérieur à l'acte à l'action mooy lu ñuy wax euh, au plaisir donc tey yow euh, lépp loo xam ne yaa ngi koy désirer rek bànneex bi ngay am ci désir boobu mooy ëpp ko boo koy jëf ma peut-être dima su ma la ko doon tegtal ci mu gën a leer euh, day xaw a vulgaire tuuti mais dinaa ko jëmee see tey jii boo nekkee góor jigéen romb la def li ngeen di woowee souvent pàccal sa yaram am na peut-être boo koy xool noonu physiologiquement li ngay éprouver mooy mooy gën a kawe que boo demee ba di sëkkante ak jigéen bi di laal loo xam ne yow gi laaloo ko woon avant mais yaa ngi ko doon gis. boo demee ci psychologue yi dañ lay ne souvent euh, le désir est supérieur à l'acte ça veut dire que ce que tu éprouves en voyant la chose désirée mooy ëpp que boo demee ba ba nekk ci euh, c'est-à-dire que tey boo boo doon toog euh, mënu ma ko expliquer comme ni la télé lañ nekk am na yoo xam ne peut-être tamit am na ñu ñuy seetaan mais en termes d'éducation ça veut dire qu'un homme aujourd'hui tey góor mu xool euh, cëru jigéen souvent lay ëpp plaisir que bu jëlee loo xam teg ko ci moo koy ëpp moo tax ma ne désir boobu nag moo waral souvent da ngay am sa jabar bo demee ba sëkk ak mom benn yoon ñaari yoon ñetti yoon désir amatu fa plaisir moo fay am te comme désir bi moo supérieur plaisir bi moo tax après nag yow boo rombaate beneen jigéen boo xam ne sëkk goog moom dara donc désir a ngi foofu. mais yow kon aussi sama gis-gis ça veut dire que on peut aimer tout en étant infidèle. Ah, day am non loolu loolu mooy logique bi. Hmm. c'est-à-dire moo tax ma ne la infidélité ça n'a rien à voir avec l'amour. Hmm. parce que mun nga sëkk ak jigéen sëy ak moom. te noboo ko mun nga nob am benn jigéen boo xam ne moom nga nob mais nee naa la côté sexe plaisir la ak désir désir bi moo ëpp moo tax jigéen góor te loo dem ba am ko mënutoo ko désirer nit boo demee ba am dara ba consommer ko mënutoo ko désirer saa yi nag plaisir bi mun na fa nekk mais désir bi yaa ngi koy am si ñi nga xam ne dala ump jotagoo ko moo tax mu lay jaral ngay daw si ginnaaw moo tax ngay gis boo seetee góor yu infidèles yi souvent bu ñu dañuy daw ginnaawu jigéen di ko jox ay 100000 francs 200000 francs mais bu ñu ko tëddee benn yoon comme borom alal la ñu pare nañu si kooku day toog di woote ah foo nekk noonu aw jot heure bi kii réunion bi lu tax parce que désiram boobu assouvir na ko pare na ci. léegi nag ci beneen désir nag lay utaat mooy beneen soxna bu muy dajawaat encore euh, yaram di ko leneen yëngal ko mu toppaat di daw gannaawam bu kooku de jigéen parfois même ko parce que désir de moo koy pousser. koy poussé. le et le sentiment de l'infidélité comment elle est perçue au Sénégal. Wa infidélité bi il faut me relier ko tamit déjà xam nga phénomène bu démé ba ba ba populariser ko rek ba mu banal xam nga société motax souvent da ngay xol les ce qu'on appelle ce que j'appelle souvent moy clan ou déviant yi bu ñu bëggee affaire bo xamné euh société du ko da koy day am tendance vulgariser ko par les télé euh, par les magazines nit yi di ko tàmm gis boo demee ba tàmm plus ngay tàmm société di ko tàmm gis rek day dem ba dekk da koy banaliser te loolu phénomène yu bëri tey ji yoo xam ne ay phénomène euh, déviance la boo xoolee ci société noonu lay demee homosexualité dañuy commencé ji benn film jël benn gaayan di ko góor jigéen muy toog nga gis da gis ay ay jullit toog di ko seetaan di ree xale yi di ree mais ci biir ree boobu nag xamuñu ni que ñi koy def ñoom ñu ngi koy jéem a dugal di ko nangu nit ñi au fur et à mesure au lieu ngay ñëw rek di ko dëgg ci kii ah ñi def nañu noonu nga koy dugalee et cetera donc tamit infidélité bi bu ñu demee ba foo xam ne dafa law ci biir dëkk bi euh, dañ di koy koy banaliser amoon na jamono yo xamné bo boo goor infidèle même sa meilleur copain say copain ruus nga len ko wax pourquoi parce que dañ ko rejeté mais buñu démé nak ba affaire bi banal ba nga xamné da ngay tok sa copain diko ndamo ah man dëmba ni ak ni ci sama coro bi seet mom moo may woni ah ma daw mais madame mu may ki et cetera day dem ba banal bi nga xamné ñi ngay tok ñi ngi fay nekkal ñom tamit ya nga len di ci duggal ya nga len di ci et cetera dañuy dem ba finalement société bi dañ dañ koy banaliser buñu démé nak ba banaliser ko donc ça devient plus un phénomène bo xamné day am day repressive et autres gars yi ñu koy nangoo noonu. yéen mbokku téléspectateurs yi ma leen fàtte ba léegi yéen a ngi seen biir émission au fond des choses docteur dama bëgg ñu wax tuuti sur les conséquences de l' infidélité. consequências conséquences yi moom infidélité conséquences yi bëri na. bëri na parce que tout simplement day yàq sëy day yàq sëy. day yak même euh, ngor parce que tamit nenañu souvent amna ni ngay euh, bëss bu ne nga nek ak soxna ku bëss bëss bu ne etc donc di nga dem ba peut-être sa kàttan ak sa lenen du lako may waaw loolu moo produit yu bëri bo gisé tay ji muy gëna jar sak auto c'est pas pour rien da nga gis am ñoo xam tay ji en quelques mois ou quelques années ay millionnaires lañu ba milliardaires ci ay produits aphrodisiaques ñu ñuy jaay pourquoi parce que tout simplement organisme tamit lumu euh, lumu lumu mu rek nga ko wara tek Et il se trouve que psychologiquement physiologiquement nous ne dañ pas, xamul mais effortu sëy dafa rëy ci euh, donc comme nous rëy ci des efforts matin midi soir nekk ci des partenaires nous avons da ngay organismes, ba da ngay sonal sa organisme sonal mbir donc da ngay obligé di jël ay produits pour nous ko supporter pour nous ko parce que xol bi xol mooy su ma nee xol mooy sëy c'est de manière euh, physique ah. ça veut dire nit ki boo sëy euh, sa sa sa sa cœur euh, lu mu doon action mu doon def normalement ah, ah, da nga koy multiplier par 10 parce que tout simplement sa organisme ak sa sëyukaay dafa soxla deret deret boobu xol bi moo koy def loolu moo tax ngay gis bëri ñoo xam dañuy sëy am ay crise cardiaque am ay leneen voilà donc conséquence boobu ma ngi foofu donc destruction également de l'union familiale mooy mariage bi mu ngi foofu euh, dina tax tamit même problème yi souvent di am ci coupe yëpp mu ngi lié ci développement de l'infidélité souvent nga gis góor yoo xam ne defuñu yëguñu tinuñu mais c'est parce que tout simplement jabaram dafa yàgg dégg infidélité infidélité ba nga xam ne da koy scotché lu ñuy wax marquage à la culotte foo nekk kiiwuma la woowuma kii ba ban heure ngay kii ah ban réunion looy def looy kii donc boo gisee loolu yëpp la moo ko waral c'est parce que moom dafa am psychose boo xam ne ni que loolu lay dégg ci copine yi loolu lay dégg ci kii am donc souvent nag gis góor yoo xam ne defuñu sax mais seen jabar day jàpp ni loolu la sans compter nag maladie yi ciy topp parce que tamit benn mbir dañ koy fàtte parce que boo gisee tey ji sida bi développé wu syphilis ak yeneen maladie yu bëri mais ci loolu la waral parce que souvent léegi da ngay toog sax góor boo xam ne domb day infidèle mu lay ne waaw man damay jël ay préservatif mais da ngay jël préservatif mais da nga fàtte ni que am na yeneen maladie yu am boo jëlee hépatite B tey ji souvent ni ko wax mais hépatite B nit ko am hépatite tey boo ko fóonee am nga hépatite kooku boo laajee docteur yi ñu wax la par la salive ça se transmet par la salive waaw donc am na ay maladie yu bëri yoo xam ne nit ki mën nga ko si jëlee surtout que tamit du ñepp jang jang bu leen di permettre bo xamne ne ji bo boo infidélé automatiquement da ngay jël préservatif amna ño xamne pour ñom yoy ay wax la sida amul donc dañuy ñëw def li ñuy def duñu sol préservatif duñu def dara am ay plusieurs partenaires donc yooyu ay conséquences la yo xamne ne tamit c'est c'est c'est dramatique ba après bo si tam day yaax société. nañ dem sétane élément bi nga xamanteni ben soxna dugg ko dëkkëram jëkkëram fa bëtt dëkkëram

ba tax na li nga xamante ni moom moo di euh, infidélité man mii di wax ak yow dund naa ko euh, te li ma ci dund mu gën a métti bokk na ci rek li nga xamante ni ni moom moo di nekk sa borom kër ci biir kër gi ah nga ñëw dem voyage ñëw fekk ko keneen euh, xam nga loolu dafay metti bu dookoon sax ni loo xamante ni nii ci mbedd ma la ko defee xëy na di nga ci am ay éco waaye nag loo jël sa bët daal di ko ci teg dafay doon loo xamante ni nii lu lu metti la mu doon nag yoo xam ne nii amoon naa ci ay séquelles euh, séquelles yu métti ndax euh, jóge voyage ñëw Eh, Bima ma dellusee eh, ñëw fekk sama borom kër ak benen ken benen jigen sama biir kër eh, nekk jigen buah boo xamante ni sax man mi xamoon naa ko ràññe woon naa ko te yaakaaruma yu metti yooyu dina jóge ci moom di pour mu di ma ko teg looloo gën tax sekel yi mu yi mu bàyyi ci sama bopp ba xaw ma tourmenté indir ma ay jafe-jafe ba mu gi ay faju laa ci doon def ak di ci dugal sama alal ndax yoo xamante ni psychologiquement amna ay problème problème yi euh, dem ba ki nga xamanteni ni mom moy sama jëkkër sunu diggante euh, taggo nañ te bëggoon na ko lool mu nekk goor go xamanteni kuma bëggoon la ci sama xol yëgoon ko loolu yit mu nekk yit euh, lo xane ni dundu na ko mu metti lool lool lool lool lool ci sama aduna te sama yalla dundu ko wala gis jigen bo xamanteni dana dundu lu mel ndax te li nga xane mom modi loolu bi mu amé tasna ak mbokk ndax ñeeñ góor ak jigéen bu ñu xasee ba sëy rek mbokk juddu na fa euh, tas na su suñu diggante maak moom euh, métti woon na lool daal métti woon na waaw euh, métti woon na ndaxte soo gisee mbokk gi mbokk gi su ma la nee mu tas au début xëy na arrangé woon nañ mbokk yi wax ñi nga xamante ni ñooy ay sërëm ak yooyu wax a wax a wax ba diggante bi Euh, daal ñu ne muñal ndax ku sa yaay muñ ak lu ni mel waaye dafa doon loo xamante ne nii euh, ba ci euh, bi ma ci génnee. bi ma ci génnee amaat beneen borom kër sax su ma tëddee day mel ni fee yooyu dafay dellu si waat sama kanam mu doon loo xamante ne lu metti la ndax soo gisee euh, moom sax diggante bi mënatul woon a nekk euh, c'est parce que su ma nekkoon ak moom euh, dootuma amati confiance ndax su ma nekkee moom rek day mel ni dafa jóge ci beneen jigéen ñëw ci man su ma nekkee moom dafay damay sentir yoo xamante ni ni daal yu bizarre ci sama yaram yi ma doon yëg mbëggeel gi ma doon yëg su ma nekkee ci moom ak désir yi ma doon am euh, su ma mësaan a nekk ak moom yooyu yëpp daal di effacé wu ba sat euh, loole nag doon loo xamante ni lu lu metti la ba diggante bi jeex ba sax yàlla def yàlla mayaat ma beneen boroom kër ci euh, diggante bi waaye nag teewul fee yooyu dafa doon revenir à chaque fois sama jëkkër bi ma amaatoon daaw ma am confiance ci moom à cent pour conseil bi may joxe daal moom mooy confiance lu am solo la ci diggante ñaari ñaari way koy dencante euh, ku gor ki bu fekke ni euh, am nga sa soxna ngeen nek yeen ñaar war nga mën fexé euh, ba li nga xam re mom moy di confiance sax ci seen digënté ndax firangé mënul ñaq wayé nak li nit ki li ñaan buñ lay sédd ci galu xacc bu mu yagg bañu bañu fekk la nga sëgg ci wala nga sëgg ci bool ba nga xamanteni ni ni séddale ga ca la dem ba tax na rek ñi nga xamanteni ñom ñoo di góor nañu dal a daal ci euh, ci jigéen ñi ndax mbëggeel dafa métti te xam nga jigéen dafa di koo xamante ni nii euh, naam benn jëkkër lañ ko may mu moo tax xolam kenn rek moom moo koy moom ba tax na yu métti yooyu su amee day nekk loo xam ne ni euh, day mel ni abus de confiance lay doon ci diggante ñaari woy dencante yi ba tax na sax danga fay jóge dootoo wóoloo ci keneen li may ñaax daal góor ñi laay ñaax moo di rekk ñu gën a delloosiwaat xel yi te xam na ñi nga xam ki nga xam ne moom moo di jigéen boo ko xoolee ci sa yaay wala nga xool ko ci sa rakk rek am na yoo xamante ni doo ko ko def ndaxte day doon yu métti yoo xam ne boo ko defee day des ci xelam wala mu des ci àddunaam te du mën a euh, effacé wu rawatina lu lu ñaaw lu rafet mën nañ koo mën nañ koo taqal suuf xëy na waaye lu ñaaw day doon loo xamante ni nii kenn mënatu ko effacé ci àdduna ba tax na rek góor ñi nañu gën a dellu si waat xel yi gën a jàppale jigéen ñi téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ni moom mooy élément bi ñu demoon bi xanaa ma bàyyi la nga wax si waaw élément boobu moom boo ko xam nga waxoon naa ko si si njalbeen mooy diggante ñaari nit bu nekkee relation la bu nekkee mbëggeel la confiance bi moo la lépp moo tax souvent ñu ne la la confiance elle se donne une fois elle se retire une fois benn yoon ngay am confiance boo ko benn yoon nga koy joxe benn yoon nga koy nangu amul rocc joxe waat mm-hmm. kooku nit ki même boo ko bëggoon def mënul nekk tey ji yow nit ki bu la sàccee mm-hmm. même bu nee sax baal nga ko ou bien même bu nee sax kii nga confiance bi nga ko joxoon ba tax mu yore sa alal ba mu sàcc ko mun toog ko joxaat confiance boobu te loolu c'est évident donc couple tamit confiance moo ko lal am nay góor lu muy def mbaa jigéen lu muy def rek mun nañu ne tas na sëy bi tas na union bi lu ñuy wax mbëggeel boobu tas na ko mais nag mën nañu des te nit foofu tamit sa dépend nit ñi bokkuñu am nga nit psychologie moo koy gérer donc nit ñi ngay gisee oto yi tey ñu di bi électronique bi am na nit ñoo xam ne ñoo ëpp ñoo gën a ñoo gën a foor am na ñoo xam ne mën nañu supporter yenn yi mën nañ ko transcender am na ñoo xam ne tam mënuñu ko loolu moo waral jigéen bi nga ma doon cité léegi moom ay trouble psychologique la ko def parce que mbëggeel fu mu tegoon mbëggeel bi ak ni ko jëkkër bi defee ak ni ko trompé souvent aussi lu lu di faté ou lu nit ñi di faté euh, surtout ci jigéen xam nga go tey ba 50 ans ba 60 ans mun nga defaraat sa aduna. wa parce que goor mom tant que yaa alal rek yaa ngi mën a sub defar jigéen rek ba 50 ans 60 ans sax mun nga ban jabar mais jabar am na nu muy joxee boppam ji góor rek tollu fenn même bu roccé ko jeex parce day fekk màgget na am na lu attribut mu amon lu taxoon góor yi di daw ginnaaw amatu ko n'est-ce pas amatul euh, rafetaay bi am tar bi am nay dom ba près déformé wu donc tay di da koy wóor ni kooku góor boobu yaaxal na ko addunam donc euh, conséquence ci moom le gëné bonne donc loolu moo tax tamit conséquence bu bon bu la dalee mais psychologiquement mun na la travail dafa mel ni tey jii nga xëy rek amoon alal am oto nga xëy ñàkk sa oto ñàkk sa kër ñàkk sa lépp amatoo dërëm mais kooku dalay sa avenir yëpp la donc jigéen bi tam boo xoolee tey mun nañ ne avenir am yëpp yàqu parce que non seulement joxe na boppam joxe na mbëggeelam joxe na xolam elle a été dévouée te tam musul def dara loo xam ne jëkkër bi loolu moo tax mu expliqué loolu mu def ko loolu bu la dalee dafa dafa metti donc c'est tout à fait normal moo tax tey ji boo demee ci yenn dëkk yi et c'est dommage que amu fii Sénégal lu ñuy accompagnement psychologique doit xamné moy permettre yow situation mais nit ñi parce que qui nga ni aduna parce que psychologie aspect le lu jëm ci xol perte sa kër nga amaat kër liggéeywaat mais am na yoo xam ne boo ko pertee te mu jëm ci relationnel mu jëm ci xol mënutoo ko utaat mënutoo ko debaat te xol mooy lenn loo xam ne ak psychologie dafa fragile du comme oto bu pare-choc toj rek nga ñëw réparé ko suudee ko dafa am ay élément psychologique yu bëri ci yu ci lal donc am na nu muy tojee nu muy yàqoo rek pratiquement mun nañu ne kenn mënutu ko réparé da ngay gis tey ji am na ñoo xam ne dañu vivre yenn situation yi mais fa la ñu jógee mënutuñu am yenn rapport yu normaux ak nit moo xam góor moo xam jigéen ça dañuy nekk ak moom nii rek mais souvent lu ñu dund loolu expérience bu ñu dundoon moo tax léegi dañuy méfiant ci ñëpp da ngay gis ay jigéen yoo xam ne am lu ñu dund dañuy dem sax ba day góor bu baax mais ñoom ñu ngi koy xoolee ci góor yeneen góor yi li ñu leen mosoon def di leen ko appliquer di jël yenn même précaution yi di jël yenn même euh, disposition yi et souvent ça crée un blocage loolu la ñu xam un blocage psychologique un arrêt euh, dañuy benn créé benn arrêt la ñuy créer ba nga xam ne lépp luy topp après seen aduna mënut a mën nañ ne amutu fa dara parce que blocage boobu la ñuy créer parce que tout simplement c'est un moyen de de protection pour ñoom. nañ dem seetaan ak bi nga xamante ni moom la psychologue bi wax ñëwaat ci seen définition des choses. Euh, élément boobu li ndaw soosu li ko dal euh, xam comme li ma dañuy transgresser les règles. Mm-hmm. parce que kooku loolu la wax abus de confiance. Mm-hmm. confiance de fou fort de fou profond ci nit ah nit bu ngeen nekkee dans la relation. Euh,

Euh, li ko ko indi comme tu dis dafa ànd ak borom këram ñuy ñuy daanu di jóg. Mhm. ñu am benn pacte. Mhm. boo xam ñoom ñaar mu jàpp ne situation bi ñu nekk ñoom ñaar ñoo war a euh, xeex pour génn ci loolu. Mhm. mu di ci ànd ak moom. mais est-ce que à un moment euh, jëkkëram mës na ko wax ni que man suñu relation de couple. amuma ci satisfaction. donc mës ko ko wax. te mooy li ma doon wax sànq góoñ dañuy wax naan jigéen danga koy nax. Não. nit ki doo ko nax nit ki da koy wax deug bu bu ngeen àndee mhm. euh, ngay gëmuloo ko jigen ki lo xamné yow gëmuloo ko bu ko gissé mhm. bu gissé sa fànn da koy gaañ mhm. euh, jigéen aussi boy ànd ak góor nga koy gëmuloo lo xamné ne ci moom bu gissé leneen aussi daf koy gañ mo indi euh, conséquences yi gis nga ko ci sa élément bi donc lolu moy vraiment les les les, les conséquences de de cette de ce pacte de fidélité boo xam ak ce manque de communication sincère dans le couple te le sentiment amoureux vert de cristal mhm. c'est tellement noble que c'est un verre de cristal mhm. boo xam ne ay fen mënu koo doxal il faut dire les choses ah bul nax sa bul nax sa ki nga nekkal bu ñu naxante mhm. am na ñoo xam euh, dañuy wax seen jabar carrément di préparer que man dina takk beneen jabar et que wala man lii sama rêve la sa jabar xam ko mais du tax mu changer dara ci man il faut les da ngay wax li nekk ci yow nga nekkal aussi si vous accepté mën élaborer moom tam couple mm-hmm. couple sénégalais couple au Sénégal moi je pense que c'est une cause prépondérante de l'infidélité La mm-hmm. solution est euh, je pense phénomène euh, sociaux pour ne pas dire euh, yo xamné phénomène yo xamné ak euh, société bi lay andal pour trouver solution bi daf day damay né bugguma né du nek parce que ak société bi la c'est-à-dire que phénomène bo gis xam nga ñun amna ben théorie bi ñuy wax évolutionnisme c'est-à-dire que société amna na fu muy toll fi lii moy am am fu muy toll fi lële moy am

li ñu nekkoon yoo xam ne daanu woon am mhm. lu tax daanu woon am parce que phénomène de société yooyu société d'évolution évolution la tolloon donc tey jii boo toogee ne da ngay dindi da ngay ut solution pour infidélité man à mon humble avis amul solution pratique tant que ñu ngi fii di gis yenn mbiri jigéen ñi seen seen yarin nu ñuy doxale nu ñuy kiiwee euh, boîte de nuit yi télévision yi yeneen yi ak xaalis bi et cetera et cetera yooyu société moderne la donc société moderne nag ak nu ñuy wax tamit euh, déviance moderne donc solution exacte ne daal il faut ñu tëj nit ñi kaso il faut ñu teg ñi loolu du changer dara. comme solution mënul am ban conseil ngay joxe. Euh, conseil pour kan pour. ñi nga xamante ne dañoo infidèle ak jigéen nga xamante ne conseil boo leen ti munti jox tamit si li ñu nekk ci la ñuy wéy rek conseil bi daal peut-être ñëpp xam nañ ko euh, nee naa la ko tey ji dafa am benn genre effritement relation entre nit ki ak yàlla ragal yàlla dafa wàñjeeku té loolu tamit quoi qu'on puisse faire même bo demoon ci dëkk yu am charia yi phénomène yi ngay wax gis yépp am na fa donc euh, dal delu ci diine delu ci ragal yàlla euh, am yenn valeur yu lay permettre am yar surtout tamit dañuy wax rek mais su ma nee solution amul mooy dama xam ne nit ñi duñ ko def mooy lan ku nekk boo yeewoo yar sa doom ci diine yar ko ci ay valeur yar ko ci éthique mais malheureusement lool amatul léegi ken amatul temps yar sa parce que nit ni tay man ni am 40 ans di def infidélité di def lenen mais c'est parce que tout simplement non non waxine la rek goor la am xam ma jël exemple si man que may jël exemple si keneen ñu delu di yar nit ñi à la base ñi ngay yar nak xalé yi ñuy yar tay ñom ñoy nek génération future yar gogu ñu andal ñom lañu ñu nak à l'âge de 40 ans 30 ans té ñu jomb def yenn yi mais comme léegi nit ñi nag yarutuñu ku nek yaa baye sa dom mu def lu lu ko neex amatul benn parent tey buy xëcc doomam di ko nee nii nii di ko jàngal alxuraan di ko jàngal précepte moo xam alxuraan moo xam christianisme pa amul benn religion boo xam ne tey nangu na mooy nangu na fornication donc il faut que nit ñi di yar nit ñi euh, génération yi nag peut-être ñun bu ñu jëloon tey ji engagement yar suñu doom ci ay valeur yar suñu doom ci ay mbir doom yooyu nag bu ñu ba màgg ba toll fenn ñoom ñooy ñëw àndaale valeur yooyu développé bu ñu nekkoon ndaw remercier tamit ci invitation bi que tontu nañu si euh, say question et que nous ñuy tamit dina am si ci émission bi que c'est un phénomène de société boo euh, laal na ñu bëri conséquence yi tamit rëy na ci dëkk bi parce que yàq na couple yu bëri yàq na relation yu bëri loolu moo tax tey ji kenn wóolutul sa morom euh, te diggante góor a jigéen bu amul kóolute dara muntu fa xej parce que dara gënul bon tey sa sa jëkkër nekk nekk bureau ba di liggéey di ñafe pour indi dara yow nga nekk jàpp ni que am na dara am na lu muy def nest en dehors du du bureau alors que c'est pas gënul bon tamit nga joxewu en tant que jigéen corps et âme si benn góor yeewu xam ne ko tamit mu ngi si beneen jigéen peu importe ban raison moo tax mu nekk fa parce que benn la mu nekk fa ngir mbëggeel nekk fa ngir sexe ça revient toujours au même alors que en tant que jigéen tu t'es sacrifié toog kër ga toppatoo njaboot bi toppatoo ko toppatoo ko ci lépp mais moom mu topp bànneexam rek euh, ba loolu am ci. Euh, euh,

de ne ñoom ñooy fan au fond des choses on se donne rendez-vous dans 15 jours Inch'Allah. merci.